salaamaaleykum ci la ngeen nekk dama bëggoon a participer ci série maîtresse bi tey ji seetaan naa ko bu pare mais neex na neex na trop tey daal Mère Diagne rek laay képp gi Mère Diagne dafa jeng dama ko sax yërëm mais en tout cas mooy xorom si Cheikh Diagne moom Marème mooy seytaaneem man moom Marème dama koy wér ah voilà mais jikkoy Marème damaa neex ma sañoon ñaari bu mel nii lay am su may am <laughs> parce que dama ko bëgg gém naa ko lool man ak yeneen bi waaye kenn du biram way biram biram lañ koy bàyyi <laughs> biram laal na laal la laal la day gonfle rek jàmmam jeex na dootul amati jaam ba ma dem dugg see ci langi la jàmmam jeexoon en tout cas neex na torop tey moom kenn amul lenn looy wax lu dul bëgg ba ak yeneen bi